Sallanma da. Pape pour mu jàng ko incha allahu taala. bu ko defee ñu ñëpp ñu ànd rek déglu Pape Makhtar. ci programme bi incha allahu taala. asalaamaaleykum barakaatu. mbokk yi ñu ngi jàng benn xasida boo xam ne. Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo. موكو دفتي سنو مام شيخ الحاج عمر الفوتي ذلكم المجاهد الأكبر والقدوة الأشهر نون يالا دوغلنا اديسيون رنبي شريف سيد احمد التجاني سي وقتان تيك خليفه بي سليم بابكر محمد المنصور وقتان تيك موم ne nañ ko cërale suñu maam cheikh alxaaji omar alfutiyu radiallahu anhu ak njabootam te tey ki nekk ci bopp bi di xalifaam di suñu way jur cerno bachir mouhamadul bachir taal yal na yàlla dolli guddal fanam te may ko wér sànq ci bëccëg wax naa ne ñun taalibe yi fii ci biir Sénégal ak biti Sénégal buñu jëlon sunu ciofel def ko ci plateau jël ciofelu Thierno Mouhamadul bashir tal ci Cheikh El Hadj Abdoul Aziz def ko ci plateau plateau am dana wat sunu plateau ñun talibé yépp ndax ciofelam ci Dabakh Malick lolu duñ ko werante ndax dañ ko dundu ak mom ci képparu góor gi dund ko itam biñu wo wa góor gi wanee ginnaaw te nekk fi yalla yàlla dolé guddal fanam Cheikh El Hadj Malick Sy ne xasida bi bi mu koy def ci ndigal la ko defee ndax munaasaba bu amoon la ñu waroon a màggal fàttaliku suñu maam Cheikh El Hadj Omar ak sunu maam Thierno Saïdou Nourou radiyallahu anhuma am ku ko ku yàlla woon góor gi mu ne ko wax Al Hadj Malick ne ko. na ma defal qasida ci événement bi jëme ko ci sama maam cheikh alxaaji omar al fouti yi waaw jàmbaari diine yàlla nañ ko yàlla fayal cheikh alxaaji malik ne اليوم طيب ذكرك الأرجاء يا من وطئت بكعبك الجوزاء لك حين تذكر جدة ومكانة قد جل مجدك أن يصاب بلاء شملتك من منن الكريم فضائل وفواضل بهرت سنا وسناء شاء المهيمن شاء المهيمن أن يجي بك آية تعيي العصور جلالة وبهاء يا شيخ يا شيخ يا فخر الزمان وجوده يا شيخ يا فخر الزمان وجوده يا من حكى الرسل والخلفاء خلدت في الدنيا خلدت في الدنيا روائع جمة أبقت لك الذكرى تضوع ثناء عمر العظيم نراه فيك مشخصا وبعبقريته أتيت سواء مدى حكم مهما أجاد مقصر أفحمتم الشعراء والبلغاء رفع الزمان لواءكم مترفرفا للناس أسديت اليد البيضاء المجد أنتم والسيادة والندى يا سيدا قد خلف الكرماء لما احتجبت عن العيون بدا لنا عهد البنين سعادة وهناء فالسعد والأنوار حلف سعيدنا من خصه الباري يدا وعطاء فالسعد والأنوار حلف سعيدنا من خصه الباري يدا وعطاء والحمد بعد الالتقاء تجمع في شيخنا من ناسب القرماء تقف الجلالة في الضريح عليهما شمسان في فلك يموج ضياء يا ربي يا ربي يا رب روح في الجنان تنعما أرواحهم وأنلهم النعماء يا رب روح في الجنان تنعما أرواحهم وأنلهم النعماء يجري على روح الحبيب وآله والصحب صحب صلاته هطلاء أبيات يعني نونو لم تي يا يارم رفيت جي دايو kuko degul déggul sax sa ruux dégg na ko baat ci jëfandikoo ci yaram rek ma sha allah wane niveau intellectuel bu Cheikh Al Hadj malik abdul Aziz waaw baatu al jawza nga xamne ne burujun min abraji sama nek bayna thadi wa saratan ci wéru mai 21 mai lay tambuli di jexé ci 21 juin moy buru jul jawza nek ci kaw waye nee na Cheikh Alxaaji Omar radiyallahu taala anhu ci mithal ci waxin ndax ñi jàng bayan xam nañ ne kalam du no la neex waxe waye nee na Cheikh Alxaaji Omar itteem ak kaweem daanaka tek na tànkam ci buru jul jawza نين لك حين تذكر جدة الجدة بمعنى الحداثة والطرافة جمونو بن لا تودي يو شيخ الحاج عمر ستور دا فا ملني دا ام بنين اكتيفيتي بو نيت كي ييك بو خامن يزيده قوة وحيوية وديناميكية دون موي باتو جدة ومكانة قد جل مجدك ان بلاء شملت شملتك من منن الكريم فضائل وفواضل gis nga ñaari baat yi ni ñu top topante min xaytul wësn te pourtant bokku ñu maana huna inal fadail wal fawadil fadail moy jamu fadila fadila darajatun samiyatun fil fadl wal akhlaq al hamida درجة سامية في الفضل والأخلاق الحميدة والصفات radhilati المبتعدة naqisa kal mahabbati wal ikhlasi والتضحية والشجاعة ييب من الفضائل فضائل لك موجور أي فضائل الشجاعة موجور إقدام الكرم موجور جح نيركو تدل بكنم ريول باخل لخم دو تالي نيركو أمول فيك دو صنغ الشجاعة فضيلة الإقدام فاضلة لا لولو موي فرق بين الفواضل والفضل يا شيخ يا فخر الزمان وجوده يا شيخ الحاج عمر يا خبدا يا ولا يا ولا جامونو دي بوكو ريو يا ميغا خامني سا دوخين تي ايتي اك بو كاوي اك تسار الدين دوخينو يوننتي لا دوخينو خلفاء ييغا خامني نيوكو في ووتون واي نك باي ييغا في سوفينير يو خامني كين دوكو فاتي خلت في الدنيا روائع جنه ابقد لك الذكرى ما كين دولا فاتي سوتور شيخ الحاج عمر الفوتي تال jàmbaari diine turam ba àddunay tukki kenn dootu ko fàtte mu ne ko nag dafa mel suñu suñu kilif khalifa bu tedd ba di sayyidina umar al Faruq dafa mel dañu jël mbubam solal lako ci njambar ak ñeme deug ak fit ak taxaw diine l'islam omarul azimu naraahu fiika mushaxasan wa bi اتي uti as tuti tasawaa maddaa xukum ki taxaw bëgg laa tagg yow مهما أجاد مقصر لم جك جك اللغة العربية لم أم أم بيان لم أم أم بلاغة لم جك جك بديع دنا أم لتدس أفهمتم الشعراء والبلغاء سنو جلي ويكاد يك ني جانغ بلاغة نيب يو شيخ الحاج عمر دغا لينا ويدوم لو المجد أنتم ياي tedd nga yow ci sa bopp wa siyaadatu ak cang bu doon mbubu yaa ko sol na daa dan xat xallafal kuramaa dem nga nag لما احتجبت عن العيون بدا لنا عهد البنين سعادة وحناء wuutu la maxtajabta an il ahdul saadatan nga làqu baye nga fi njabot gu bax di ay dom di ay sët yo xamne ñoy taxaw diina ji ba keroog aduna yi tukki man nañ suñu ci du nur nga xamne tur wi saidu nur cheikh alxaaji malik neena na said modi di assaadu texe نور مودي لير موتاخ مو نفا سعد والانوار كون تخي اك لير دي دا فا ملني ньо ньо سك سوني مام تيرن سعيد النور رضي الله عنه من خصه الباري يدا وعطاء يالنا يالا دولي يرمندم يالنا يالا تاسكي باركيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته jërëjëf sëñ Pape Makhtar sëñ Modou yàlla na yàlla sàmm ko bu baax a baax a baax sëñ Sidi sa doom sëñ Sidi Ahmed bu Ahmed si bu sëñ Aziz Al Amin mi ngi nii ñëw na léegi mi ngi ak ànd ak Makhtar Ndiaye Al Amin mi nga xam ni barki démb ñëw na indi télévision bi ak ndimbalam